لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله Abonne leen ci seen seen YouTube Darou Fall TV abonne leen ci seen seen YouTube Darou Fall TV mbokk yi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel Darou Fall TV ci biir réew mi ak ci biti réew am nañ mbégte ak bànneex jàkkaarloo waat ak sunu gan dees leen ko présenté ti sëriñ Moustapha Fall Fatikan ibnu sëriñ Modou Aminta Fall euh, moom lañ am mbégte jàkkaarloo waat ak moom fas ne waxtaan lenn ci ay ponk euh, xam ngeen ne dëgmal nañ bisub ngërëm bis bu sell màggalu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, foofu ca janaat um hawa sëriñ Bachir Fall alxuraan daan ko amal ba ñu fi bàyyi ko xalifaam sëriñ Gonda Fall di ko wéyal waaye ñi ngi nuyu mboolem ñu bàyyi xel bis bobu ñepp am nañ mbégte ak jakar lok suñu gan fa seen see waxtaan lenn ci ay ponku lan moy ngeerum ak lu waral ngeerum bi si Moustapha kàddu gaagu mu bàyyi la nga nuyu bu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salamun ala man ittabaa rasul wa amana billahi wa bil yawmil akhir wa man ittasafa bi sifaatihim min at-tabi'in ila yawmid din ñu ngi nuyu mbokk yi ñu seetaan ci seen chaîne YouTube bi ñu wax Darou Fall TV di sunu chaîne di seenu mboolem waa kër Cheikh Ibra gépp ak mboolem murid yi ak mboolem jullit yëpp boo nee jullit yi rek ñax ñëpp dugg nañ boo nee murid it Baay Fall dugg nañ ci biir waaye murid ab baat la boo xam ne. mubtada la mubtada murid da nga tambali rek ni murid aji nam mu bo ne sadikhun nak nag nga melo wi kon boleh murid sadikh yeb ko nam yalla te deugal te sa yaakaar na ci sering touba ginaaw bi nga gëmee sa borom woluko euh, kon sen bi sa sen la ndax nit ñu bare bare ñi ñuy woo fu ne ci àdduna bi fii sax dañ fi ñëw di ñu wax ay kàddu ñu jot li ñu seeni kàddu ñu ngi ciy jariñu bu baax a baax loolu nag lu am solo la kon ñooñu lañu nuyu di leen ziyaara te di leen ñaanal nag di leen ñaanal it yéen ngeen ñaanal nag nit kon nag mi ngoog jërëjëf sëriñ Moustapha Fall Fatikan ibnu sëriñ Modou Aminta Fall ñoo jakkar la jàkkaarloowaat ak mom nuyu amna solo lool sëriñ bi ñi ngi sant mbolam ñi bàyyi xel ñepp rek ci biir réew ak ci biti réew niñ ko waxé won rek kon dañuy tàbbeeg euh, ci ponk bi ñëk dañ koy commencé ak masxam en face ñaari Baay Faal lan nga andil mbokk yi ci jëm ci garab gi di masxam di garab gu njariñ gu àndul ak lor mbokk yi ñu koy réclamer diko wut diko sentu fune ci international bi xamna naa sax jombul nañ si ñew Serigne Moustapha lo loo indil mbokk yi la si ci mos xam. barab bi de liko waral duñ deñ moko diko wax ndax liko waral tay ta moko waral suba lolu moy garab gi nga xamni mom lañu wax mos xam njëkk loolu am na amoon na weneen tur njëkk loolu hmm. waaye nak bi ñu biñ nattee nak ba xool xool xam nañ ni lii moom mënee su ko tuddee nen mu dul mos xam hmm. mooy danga koy mos daal koy xam boo mosee lan ngay xam mooy njariñ li muy jariñ ngay xam mos xam amul benn lor te loolu résultat yi ñu ngi koy kii fu ne xam nañu nit ñi mos xam ñor na leen waaye jëm jëmmi ki tax mos xam amit ñor na leen mooy hmm, hmm, jëmmi Cheikh Mouhamadou Fadilou Fall la ñu waxoon démb ñu duñ ko duural xalaatuñ koo waxal lu dëgg na xam nañu waxal waaju baax li lu dëgg li ci ne mm-hmm. nit it xam nañ waxal waaju baax luy dëgg li ci ne mm-hmm. moo tax duñ deñ mukk ci di ko tasaare di ko fonk nag mm-hmm. ndax nit lu ko yàlla bu lu deflee teraanga da nga koy xam ne teraanga la defal am na ñoo xam ne seen teraanga seen sunu borom ci seen làmmiñ la ko def waaw seen teraanga am na ñoo xam ne seen teraanga ci seen loxo bi la ko def ndax ki nga xam ne day tëgg wala muy bind wala muy def lenn benn activité liggéey boo xam ne ci loxo la ko def ba ci bureaucrate yi ñoom ñëpp seen teraanga xam nga fii la ko yàlla def mbaa kon bokk na ci ki nga xam ne dafa nekk terrain ba def fu it bul fàtte ne teraangaam suñu borom da ko def ci tànkam hmm? waaw ñun nag suñu borom euh, dañoo defal teraanga ci garab gii teraanga ji nag li ci ëpp solo mooy nit ki ndax ñu baree bare ci ñuy jàng boo leen laajoon lu ñu opté pour doon ko médecin lañu wax ndax xam nañu ñaari yoon la cee nekk waaw ñaari yoon yooyu ne ci ci garab gi nag moo tax ñu koy yaatal alhamdulilah na sant nañ ci yàlla ndax léeg-léeg nit jóge fu sori sëñ bi ñëw fii ni damaa bëggoon mos xam ñu génne jox ko mos xam mu jënd ñaata la jar ñu ne ko ñaari junni la jar mu génne jënd waaye du ca yem da lamp ci posam génne benen junni wala mu génne ñent junni ni li addiyee Cheikh Ibra la ndax lan mhm. ndax émission bi ngeen def mhm. waxtu wu ne mi ngi gindi di ñu yee ci yu bare bare bare bare comme mhm. nak fune dang fa wara mëna dem dem ci ku ne wax ak mom lan moy ak murit lan moy ak talibé yalla dogal nga mëna tok fi nyom di wax ak ñom ñukoy dégg lolé ni ngi leen ci ndokkel bu baax ba ki dem rek am ku ñew fi ko xamni Cheikh Ibra lañ ko tur ñu wax suñu jeng def na teraanga ju mel noonu ak ñeneen ñu mel ni moom ñoo xam dañ lay wooyee fu ne ku ju mel ni sëñ Moussa Guèye Espagne ak ñu mel ni ñoom ñu dañuy jékki-jékki di jël addi yu takk di ko def ngir kàddu yi di génn fii ci bureau Mos Xam di dem ci ñoom di leen fekk di leen dimbali ci liñ bëgg a dund ak liñ bëgg a dégg kon kon duñ dañ mukk di ko présenté waat moom garab gi waaw faw bala ñoo jiital suñuy kaddu ci wax faaw ñu wax garab gi bu baaxa baax muy waaw muy képp koo xam ni garab gi li ci gën a ëpp solo sëñ bi dafay raxas deret li tax nit ki bu koy jël ñu naan ko am na looy diwoo wala am na looy am na looy naan deret di mi raxas moo tax mm-hmm. te lii moo ko wax moo ko waral te góor tamit ni mu koy jariñe noonu la jariñe jigéen parce que jigéen ñu ci bari dañuy am nit dañuy jékki-jékki ñun dama am estomac te fekk du estomac bi rek du estomac moo tëb tëb rek ñëw am na loo am ba tax estomac am na loo koy indi. Mm-hmm. am ñoo xam ne day ñëw ne la man kat damaa amee néew kàttan néew kàttan yi tamit ku sa deret doxul sa sidit bougé mënoo am kàttan. Mm-hmm. waaw foofu da koy néew néewle yooyu daf koy débousé ki nga xam ne dafa amee suukar tamit garab bi ni mu koy def dafa yéeme ki dem ba yaramam di nagamam. yaram nga xam day nagam nga xam ni nga xam ni dafa am suukar ba yaram bi nagam loolu daf koy dindi facilement. waaw yi ci des nag waxoon nañ ko ci des mooy ay hémorroïdes ak xeet yooyu yooyu moom fay laay alhamdu. waaw mm. waaw bu jokkoo ci numéro bi rek ak fu ko waaye fu ko waaye mën a jënd ci barab yi ñu koy jaayee fu mel ni Mbour dakaar ak feneen fu ñu koy mën a jaay rek mm. ñu ngi ñaan ku ko jënd ku ne rek nga jël suñu numéro nga wooñu ndax moom nañ ko xaar mi ngi ñëw ci international international incha rabbi incha rabbi kon mi ngi ko jërëjëf Serigne Moustapha kàddu yu leer na am solo lool ci ñenn ñi bàyyi xel barab bi ak li waral barab bi ak njariñu barab bi kon mu mel ne ñu yanoo yenneku nañ xam nañ kon ngoog ñoo ko déggandoo rek ni ko Serigne Moustapha xam ne noonu rek la kon ñu jublu ci li waral jotaay bi moo di bisub ngërëm bis boo xam ne euh, ñu ngi koy màggal Cheikh Fall ca Serigne Bachirou Fall alxuraan moom Serigne Mbacke Fall maam Cheikh Ibrahima Fall daan ko def at mu jot ba ni fi bàyyi ko Serigne Ngunda Fall def xalifaam di ko wéyal foofu ci jarat Mahwa ñu jul bis boobu ndax mën nañoo xam boobu lan moo ko waral ak lan mooy ceeslaayu bis bi si Moussa. alhamdulilah ñu ngi amaan mbégte bu baax di rafetluwaat laaj bi ci bis boobu nga xam ne sunu bis la ñun waa kër Cheikh Ibrahima gépp ak murid yi ndax. ki ko doon def di sëriñ Bassirou Fall alquran kenn la woon ci koo xam koo xam ne ci sëti maam Cheikh Ibrahima Fall la woon di doom ci sëriñ Mbacke sëriñ Mbacke Fall mu Cheikh Ibra waaw sëriñ Bassirou di ñaareelu njabootam doomam sunu boroom degleel ko bis bi waaye bis bi bisu ngërëm lañ koy tuddee waaw waaye ngërëm fu ñu ko tuddee ni diw dafa am ngërëm des na laaj nu mu doon def ba am ngërëm hmm? waaw nit it booy dem di sàkk ci moom ngërëm da laaj ba xam ki ñëw di sàkk ci moom ngërëm moom moo ne ñëw leen sàkk ngërëm waaye laa da ngaa dem rek di sàkku ngërëm ci moom noonu ñaar yooyu yëpp dafa def cee daje yoo xam ni des ko war a leeral donte mu bañ a gudd wala mu gudd lépp lu ci mën a xew rek njariñ la doon. lañ waaw léegi nag borom Irwa na dem dafa waxoon ni su aalum lii ab laaj la moom da moom mi bind dañuy tafhimun xalaa namati suaalin wa jawaab lii ak déggale la ci anam wu laaj ak tontu. daanni su laaj bi mooy maa daxa illahi cheikh sëriñ Touba lan la doon woote lan la woowoon asxaabahu ay ay taalibeem ginnaaw ba mu leen ko ba mu leen woowee war a taxaa bi illahi maa huwa al jawaab ba mu leen woowee ba mu ñëw ñu yéeg ci escalier boobu sëñ bi loolu mu doon woote ak foofu taalibe bi doon yéeg lu mu doon maa jawaab nga xool ni Cheikh Ibra ci nga xamee ni ku koy tudd tudd bokkaale xamul li ngay wax dégg nga ndax sunu boroom ihlam xabaakallaahu kaana rusdan wasaa kaana ilaahuna wala shay a maha wa laysa min shayin wala fiihi wala fi taxtihi wala alayhi musjala dégg nga xamal ne suñu borom lu am la ba am tamit dara àndut mom moom ba tay suñu borom tukkeewul ci ci dara hmm. man nga ni doomu aadama ci ban la tukkee suñu borom tukkeewul ci dara newul tamit ci bir dara ñun man nga ne birubi ngi ci bir bureau bi suñu génnoon bureau bi man nga ne ngi ci bir quartier bi buñu gënné quartier man nga ne ngi ci bir mbacké buñu gënné mbacké man nga ni ñu ngi bir Sénégal buñ génn Sénégal mel nga ne ñu ngi biir àdduna suñu borom loolu tënk ko waaw ba tey wala fi taxte yi niwul ci ron dara yow yaa yow suuf si mi ngi ci sa waaw ñu dugg suufit ñun as suuf si asamaan si moo ñu féete kaw kon suñu borom niwul ci ron dara dégg nga niwul ci biir dara tamit comme ni ma la ko waxee léegi ak lu mu mën a doon tàmbalewul fenn yemul fenn amul jamono jo xamne tamit sun borom ci la feñ nga xam ne boo ko nga yow 1900 nangam nga feñ sun borom amul jamono sun borom khadim la ta xel nag mu muccu ta sel bu xalaté ba pare ñet la koy tak moy nangam ji munta ñak ak nangam ji munta nek nangam ji munta nek ak nangam ji munta ñak ak li man na man na ñak xel fofu rek la koy la koy takk. Hmm? xel mu mucc su xalaatee foofu la koy takk am lu mën a am ba pare am am lu mën a am ba noppi amul am lu mën a mën a ñàkk. <laughs> mën a am am li mangoo ko yooyu yëpp yëpp yëpp dañ ko dañ ko war a jàngate léegi nag nit ki war a xam ni sunu borom amul aw xeet boo xam ni yow ko la doon xool da nga ne yaa ngi ci xeet doomu aadama nga ne. néew ci xeetu jinne néew ci xeetu malaayika suñu borom amul xeet boo koy boo koy xool amul 1900 bu mu feeñ amul ab kem nga xam ne yow yaa ngi penku yaa ngi soow xeesul ñuulut li gën a dee daal mooy fa kullu maa yaqturu bil baali abad fa bi xilaafi daaka rabbuna al ahad loolu la boroom mawaahibul quddus waxoon mooy lépp lu li toq cim xel nga yaakaar ne loolu suñu borom nuróo naa moom loolu jóoy naa moom loolu mooy tawhiid dëggantaan. Hmm. léegi nag kon sëñ bi lu mu doon laaj lu mu doon woo ay taalibeem ba ñu yëg wusi ko maa huwal jawaab alaa yëgal ni walla yëg leen ni huwa moom al ixlaas mooy sellal allati sellal gi nga xam ne huwa ruuxul amal mooy ruug jëf jëf bu fekkoon jëmm la ñu ne taxaw nii bu ci ruugi jëmm bu ci ruugi jëmm jëmm am ruu lu muy def day dee ma ngoog léegi ruu googu nag se mooy sellal jëf bu doon jëmm la sellal gi moom mooy doon ruu gi te sellal gi natiijatu maxrifatil aarifin résultat ma xaarifina yi mooy sellal الذي به يحصل الوصول كي موم غمانا امي اك اك سي سون بوروم لول هو عباره عن كون العبد خالصا لله في حركاته وسكناته وحقائده واحواله وافعاله واحواله كلها ظاهرا وباطنا لب لله لولو موي جامبي اك ييغوتوم اكو دارام ay pas-pasam ak i waxam ak i jëfam ay mbiram lepp saayir ak batin day ñël suñu borom yi nak ci le cheikh ibrahim doon def moy ñu sakku ngeerum ci nga ko mën a amee waaw yi ma la wax ni ci sakku ngeerum nga mëna amé mëno ko amé ci ci jang légui hmm. ginaaw ba yoy jallé hmm ginaaw ba sàkku ngërëm noppi jallagul jàllagut de déedéet baal ma jàll bu noppi yii ma la wax nii ci nga ko mën a amee ndax yi nga ko mënut amee dama lay wax tax mënoo ko ci am wala yaxsulu hada xaaliban bi mujarradi tadris lii mënoo ko am ci jàng ndax ab jàngalekat daa am lu ko war isil mudarris daalun mufahimun faqat ab jàngalekat xam nga lu ko war fexe ba ki muy jàngal dégg li muy muy jàng kese waaye fal fal munazalatu nag ba thalika halal mutaallim warteef wa muy jëfe gi comme war ki doon jàng la war te loolu su amee xam nga lu muy jariñ xat yar sudu waxat laa yar sudu amaana mu jub amaana mu bañ a jub waaye walam yakun nag min wasifatil mudarris mukaabadatu hoo ki doon jàngale loolu waru ko jànkoonteeg loolu ba ba ba mu jub waru benn jàngalekat. waaw li ngay jàng nga jëfe ko loolu waru kenn. <laughs> yow li nga déggal li nga jàng xam ko loolu moo war a jàngalekat waaye jëfe gi waru kenn bu dee li seexaloo doon wut nag muy àgg ci yàlla nga xam ni ci e-, e-, ixlaas mi nga ko mën a ame dafa wax ni wasiyooxu tarbiyati sëriñu tërbiye min wasifatihim bokk na ci seeni warteef mukaabadatul muridiina mooy jànkonte ak murid yi yuattimuuna alayhim wasa wasaifahum kooku min taxallumin jàngale gi ci la bokk wa taxlim ak jàngale gi wa askaarin ak tudd yàlla gi wa ixdaamin ak liggéey gi wa ihdain ak joxe addiye ji sëriñub tërbiya loolu da ko war ba baax amrihim ala mahabbatin saadiqa te loolu bu amé wala yufaariquunahum xataa yubassiruuhum bi huyubi anfusihim wa yoxmiluuhum fi tatahur su ko defee nag foofu ci lay jekku ag ci yàlla bu ñëwee ak dëggam nak baña a tàqalikook sëriñ bi nga xamni sëriñ bi day xam sikkam sikkam mooy bëgg-bëgg bi mu bëgg ba mën a ba ba ba mu tax koo jóg waaw waaw nga xam ne ginnaaw bu jàng gi amee ak jàngale gi ak tudd yàlla gi mu koy wax ak liggéeyloo gi mu koy liggéeyloo ak addiyee ji mu koy ji ji mu ji mu warloo ak moom su boobaa nag day dem nag jàpp ci loxoom nag jàpp ci loxoom jàpp ci loxoom ba ne ko suñu borom a ngi nii loolu mooy bis bii ñuy waajal di bisub Cheikh Ibra Fall te léegi nga xamal ni Cheikh Ibra yàlla rek moo ko ñoroon ca waxtaan woo suñ Basiru Mbàkke woo ca nga koy xamee waaw mooy inni lam yoxruj nii min bayti illa talabu sayqin mu wasil man dara maju joge sama kër lu may xool sëriñ mu ma ci yalla illa talabu shaykhin mushil illa tamyiis la genna sama kër waye dara taxumaa joge sama kër lulul serign sëriñ ab serign ba ma àggale ci yalla ah lolou dong la mu ne ko waaw waaye nag ankay am na nag leneen kooku ajidu damay fekk fi xaali yi ci mbiram nuuru xaqin leeru dëgg leeru dëgg lu mu lay jariñ mu ne tan dafihu bihi dulumaatuhu sulumaatul xalq amaamahu sulumaatul xalq tan dafihu amaamahu sulumaatul xalq leeru dëgg googu damay fegal lëndëm lëndëmi mbindeef yi nga ne loolu dong mu ne déedéet wa tan jëli bi ayatul xaq kii maan yàlla mu dëgg mu it day feeñ ci kooku ki ma war a yóbbu ci yàlla waxul ki war a moom la wax moom Seex Ibra yóbbu ci <laughs> affaire bu garaaw la man ki ma war a yóbbu mu ne ah oto bu mel nangam la yor mu am mune mu ma kooku du yor les du du du yor poids léger de ah. du yor du yor poids lourd dede du yor yoyo muy do muy déedéet chauffeur boo est-ce que day muy dede du tok de mm-hmm. chauffeur bi est-ce que buy dawal day wuy téléphone muy dede fu mu toge dana jak tey ci direction bi amul fenn soxla. kii xam nga bëgg naa dem dalay àgg force hmm? sëfër bi est-ce bu toogee dawal day waxtaan muy déedéet kooku doomu jot googu de. ndax képp déedéet. kooku. Ibra. Oh, kooku ne ne ne kooku neexul yóbbu de. waaw wa tanjali bihi ayatul hak. nga ne waaw yow ya de kon dafa mel ni suur bi nga bëgg amul mu ne day am force ah day am force mooy lan mu ne lawlam ajit lawlam ajit kon mom, huwa yajit lawlam ajit huwa yajit bu kulun. fekkul ahadan kenn mi man haasihi sifatuhu illa xabruhu kii bu fekkul ñëw naa fekkum ñu ne sëfoor yëpp jeex nañ ma fekk ñu ne sëfoor bi laa yóbbuwaatee fii lañ ko def mu ni bàmmeel booba dana danaa jàpp ba dem nga xam soxlaatul oto léegi soxlaatul oto <laughs> léegi mooy am dem amul dem amul dem man damay dem ci yàlla force waaw mu ne bu fekkoon ñëw naa fekk ni fii lañ ko def ma mën a waat ni la laamu xasam la ci naxu la balaxa nii sédduxu niyyat yi fi amal yi ma mën a waat ni sama dëggalu yéene dina may la bëgg ci jëmm jooju waaw kon kooku tool li muy bari bari bari bari ndeke fay fekk sëfoor bu ko yobbu waye bu ko fekkutoon dara àgg te bu waree gën a garaaw. gën a def na wax dama xam sëñ bi rek ne dina liggéey ba sama bàmmeel lay liggéey. waaw loolu ben loolu ben dimension la momit waye xol xoola bi li waxuma ko ngir wax wax ji lépp ba jeex mënuma ko parce que man limay wax mang koy yëg xam nga wax waye dama bëgg ki déglu rek di sétane xelam ubbeeku mu mën a jaar ci bunt bi yéeg xam nga bi mu ko waxee sëfoor bi lu ko sëfoor ba hmm? dana ko dana ko wax dana ko mooy yow li yow mën naa laa yóbbu waaw ni ko ni ko dana ko man nii man mii de li ngay wax nii lépp awuma ko waaw te man de pourtant damay dem. day wax li amul damay dem. waaw mooy yaa Ibrahimu ana law ajid min asaarihi sallallahu alayhi wa sallam illaa mantura hazihi nujum wassamaa illati taxaqtu annaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana yansuru ilayha lawasixtu bi anna niyati wa mahabbati kafilataani li bixdaa ila has yow Ibrahima li nga bëgg man na né ndax man mi de yoon saa salaam fekkoon fekkuma ci suuf dara ci ay xétam loolu asaman si nga ak biddi wi nga de man dana mën waat ni sama wi yene dana ma may ma bëgg ma am sama pajug aay lu waaye gëmul du si jariñ moo gën a xormu loolu Serigne Touba bi ko Cheikh bi di wax loolu ak bi Serigne Touba ganee àddina junni at la ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk mille deux cent soixante six soixante seize waaw waaw maam bi si sëñ bi di gane àdduna loolu la xaama saran ak bi yonte bi faatoo ba ci at moom lool la junni at ak ak ak juróom-ñaar fukk ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk mille cent soixante dix laa bëgg am ñu ni xaama bisar hin soixante douze waaw ñii dañ ne junni bu teg ñeenti téeméer. waaw ak juróom-ñaar. waaw waaye lu mën a xew rek mooy nee na ko li nga bëgg mu mën naa am ndax man yonent bi ñëw na moom si sëñ Tuubaa fekk fi yonent bi ta ba mu ba muy wut yàlla sunu borom dane ko sëñ bi dane dalla ni yàllaahu ala muhammadi waxaada ni muhammadin lis samadi mooy demal ci diw moo ni la ci man loolu nag nga xam ne yonte bi da ko wax suñu borom da ko wax Serigne Touba niki noonu la waxee Cheikh Ibra li li ma la wax nii te Cheikh Ibra déggul ni Mbàkke Kajoor am na sëriñ ba fi woote déggulool loolu de Cheikh Ibra booba ma nga fële cee njare waxe loolu su ma juumul njàmbur la sëñ bi ma waaw Cheikh Ibra mi ngi sëñ Touba mi ngi Kajoor ndax boobu Mbàkke Kajoor la ne déggul ne am na benn sëriñ bu bees bu wootee buy def benn kiimaan amut parce que boobu téléphone amul nit ñi xamante sax kon kii dafa am dafa am daa am lu ko yëkkati am ku ko yëkkati ne ko kii lay yóbbu kat demal nii ak nii ak ak nii nii la mel mu jóg ñëw ba mu ñëwee wax ko kenn ma fi indi bar bañ na ko ñam doon tegtaloo bañ bam leen gisee sax bañ jame sax jappu ñu nit lañ andal la andal kon ki doon wut ngërëm moy ki ci kim doon wut ngërëm moy ki mi nga wax jef serigne mustafa ki doon wut ngërëm moy ki si ki ko doon wute mooy kii léegi ndax gina ba mu wutee ngërëm ba am ko lan moy njariñul ngërëm li lay bëgg nga dikk ci ak mbokk yi lay seetaan Cheikh Moussa. man de damay gis ci téere bi Irwaa Nadim léeg-léeg dama ci gis ay ñu jëflanteeg sëriñ bi ñoo xam ne benn yoon xam nga naar yi bi ñu waxtaan ci wàllu wa huwa maakum suñu borom ñu mu àndeek ñun li gën a firndeel ni. da ci am lu lu lu ëpp ëpp solo dañu firnde ni sayyidina Jibril est-ce que dina wàccaat ak du wacc waaw lay nak señ bi am ay way yom wayon am junj yu ca ne junj ci nga xamé lan mooy njëriñul dani la khat jaa ruhul qudsi wa huwa mufarrijun bi jundin xathimin hina ahmada yakhruju gis nga ahmad moom mu junju nga xam bi mi faatu jundun xathim mom la sayyidina Jibril andal ñew fekke ci ko ngir teral ko xam nga ko waral serigne bi di serigne mo lu ñu dafa dafa fi dani dafa fi dani akhbarani akhi wa khalili sayyid ibrahim Hamar. al maxruufu amati bi ibra joor dani sama waaw dan dee dani sama mbokk sama xarit sëñ ibra amar te ñu gën koo xamee ci mbooloo mi mooy sëñ ibra joor dafa am xesa bu mu nekk li dani arsala ina sayxa naka sëriñ tuubaa arsala nii yónni na ma mu bàyyi ko sarsaar lu la yoni won mu sarsar aw tuntu muhsin ci gànnaar fan la la yoni won mu ne ila ndar damaa ma dem dar lu la yoni won mu ashtari lahu kitabal mawahibil la dunya lil qaslani tere bo xamni al qaslani moko way tuddu mawahibul la dunya sëñ mom la ko doon ci ndar sëñ ibrahim jor neena fa dhahabtu ma dem bima ma waat xamtu waat xabtu nafsi yi ma sonal sama bopp trop kulla it bépp coona waaye falam asfar bi say in mënumaa fexe ba am téere bi sonn naa trop wër téere bi fu ne mënuma ko am nee na faras bu leen sëñ amul li kii dañu am lu waaye nee na farajaxtu mun kasiral xaatir ma ñëw nag ànd ak mer lu ma lu ma met lool waaye falam maa xaataytu xayya cheikhi ahmad ibnu budd mooy bii muy wax ahmad bi di génn àdduna booba bi mu ñëwee ba toll ak gàddam gàddam naar gu ñu wax cheikh ahmad ibnu budd nee na wakaana bayni wa baynahu maarifatun xamante woon nañ avant loolu miltu ilayhi nee na ma jéng ma daal di jàdd fi moom lis salaami wa siyaara ñëw nuyu ko siyaare ko nee na falammaa wasaltu ilayhi ba ma agsee ci moom fariha bi gaayatan mu bëgg lool wa anzala wa raxaba mu dalal ma bare yaatal ma nee na fala mat ma fala mat ma an na binaa al majlis bañ demee ba toog nag jàmmante ba pare waxtaan wi dal wa daara al hadis waxtaan wi commencé ñu commencé di waxtaan sa àll nii laaj na ma moom Cheikh Ahmad ibnu Budd laaj na sëñ Ibra Joor xan bu na yaati tarix yi lan moo sa lan mooy sa sa sa yoon wi foo demoon fa xultu lahu ma ne ko inna sayxa kaana arsala nii ila ndar ilax sëñ bi moom ma yebaloon ndar ngir ma dem gënal ko téere bu ñuy wax kit euh, mawaahibu la duniya moom sëñ Ibra Joor waaw ma wax ko ni ko ñàkk mu metti loolu ñàkk ma ko ñàkk am waaw mu wax Cheikh amat loolu Cheikh Ibra Dior nee na bi ma waxee ba noppi hmm. xaama min fawrihi dafa jóg ci saasa moom moom Cheikh Ahmad ibn Budd wa sa fil kutub mu commencé di di xool téere yi xataa axrajahu lii bi jus ayhi ba mu génn ñaari xaaj yëpp téere boobu waxaala lii mu ne ma xulli cheikh waxal sëñ bi ne ko innahu hadiyatun minni lahu li wajhillah lii addi la joo xam ni yàlla rek moo tax ma jox ko jox naa ko addi ngir yàlla nee na fa farixtu biha xaayatal fara sëñ Ibra Joor nee na dégg nga wa farihan fi sayx aksara min farihan bi kitaabil wa bil nee na ba mu demee tamit euh, sëñ bi ko sëñ bi mu jox addee yi moo gën a bég muy téere boobu mooy nag lii lii téere bii mu ko joxoon addiya mooy sababus li mu waxoon ci way wi daan ni min ahtal xadimi alladi lahu min allaahi juudan xayrahu wa huwa antaju min allaahi rabbil xarsi abughi mawahiban li muhdin biha muhdin biha gi mooy kitaabul mawaahib kitaab kitaabal mawaahibi la waaw benn téere ku ko mën a jox addiya te yàlla tax nga dem bay génn àdduna Seydina Jibril ñëw ak mbooloo mu bari waa kii bàyyi ay bokkam te yàlla tax ñëw <laughs> ànd yow <laughs> ànd yow ak dundam yëpp nag. nit ñi dañuy dund rek waaye xalaat kon loolu loolu du njëriñul ngërëm est-ce que loolu mën na ko am mën na ko amee ci lenn bu bu bu nu moon si Ahmad bu ma waxoon nu man dawul jaam yàlla <laughs> te moom te moom wàlliwu woon sax boole ci. Adi jii mu jox serigne touba motax bi faatu Seydina Jibril ñëw and ak kurel malaika yu bare bare lolu ci liggeel serigne touba lako mëna amé mm-hmm. hmm mm-hmm. kon Cheikh ibrahim mi ngi yeen nit ñi batay ci yeewooguñ loolu moy ñu bëgg xam jëriñu gërëm njëriñu gërëm Cheikh ku jërëjëfal ko moom sëriñ bi ñetteelu question bi rek euh, moo di lan mooy ngërëm li ak Cheikh Ibra lan la doon sàkku sëriñ bi ba sëriñ bi gërëm ko lii lañ bëgg nga dikk ci. ngërëm li li ko waral mooy sàkku gi demal ci géej gi topp tefes gi catu tefes ba catu tefes topp ko di dox yor sob ko tonko yu ndox mi doo jam da ko sàkku ngeureum dañ koy sàkku gis nga jaay jëf yu bari borom kër gi seigne moroom te neena mo indi ngeureum jaay jëf sa yelo sepp seigne waxe te nga ben escalier buñ la waxaatee jaay jëf tegaat nga benen tank jaay jëf tegaat nga benen gis nga tank yooyu bu ko xeeb mo la yobu ci kaw. bul taxaw bul taxaw fi bu gis ni ci ko terrasse bi nga japp na len ko fi yobu lumay ay escalier ko jaay jëf yi la mel. waaw waaw gàtt na trop waaye nag yoonu ko jëful néew ci de hmm. <laughs> dégg nga hmm. ngërëm li ko waral hmm. mooy loolu waaye nag Cheikh Ibra moom yàlla da ko dimbale ba ku ko am ku ko man ni mu ko mane def ko ni mu ko defee doo ci am lim ci am gis nga sax doo ci am boo ko amoon sax doo ko doo doo ci am lim ci am xam nga lu tax wa daax yan ilallah loolu yomb na ku ne man nga ko waaye bi isnihi moo jafe kum neex man nga taxaw fee di woote <laughs> wala nga def noonu ci yàlla waaye ci ci ndigalam mm. loolu moom moo jafe te ndigalam da ci amoon ku ko roy nag da na tax nga raw say nga raw say moroom nag waaye lim ci am bi Ibrahima moom kenn tekkalu ko Serigne Touba mm. déedéet ci am na kuy woote fee ku mën a yóbbu déedéet loolu boo ko waxee wax nga erreur kon ngërëm lu koy waral mooy dañ koy sàkku mm-hmm, mm-hmm. xam ne yow mii kat fii nga nekk nii war nga fiy jóge dem fële mm-hmm. li yóbbu nag ah boo war a jógee dem Dakar de war a dugg ci oto yi te amoo paas da sonn rek da ngay xala dox dox nag donte ayul waaye bu ko aw yaram attene moom dana tax àgg. jërëjëf kon sëriñ bi euh, dañ koy jeexale ak diggante président Macky Sall ak màggal gi président Macky Sall ak màggal gi sëriñ bi dikk ci jërëjëf loolu nag lu mat laaj la diggante président Macky Sall ak màggal gi ñu ngi profité sax ci loolu di nuyu sëriñ Ngunda mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk sëriñ Bassirou Fall alxuraan waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci moom mu mu teg ko ci loxo. sëriñ seex Fall cokke suñu baay nga xam ni moom moo jiite njabootu kër sëriñ Mbacke Fall gépp waaw sëñ Bass Alxuraan nag mu ne su tudd sëñ Mbacke Fall sëñ Cheikh cokke mooy rakkam ji sësoon ci moom bi mu fi demee bi mu demee astaxfirullah sëñ ginnaaw bu sëñ Bada Mbacke jógee moo fi nekkal sëriñ Mbacke di nuyu tamit ginnaaw sëñ Ngunda sëñ bas cokke nga xam ne moom lañ teg lépp ci loxoom waaw sëñ Basirou Fall cokke moomu mu sëñ Cheikh cokke sëñ Basirou alxuraan yar ko xam na bu baax diggante président Macky Sall ak sëñ Basirou alxuraan man mii am naa lu ma ci xam ndax président Macky Sall Serif sama xarit moo boolee président Macky Sall ak sëñ Basirou Fall alxuraan taxaw na ko wet gu ne waaw jariñ na ko ci noo noo ko yaakaariwul noo xamul sëñ Basirou alxuraan jariñ na président Macky Sall ma japp ni fukk at ak ñaar li ci ëpp def na ko sëñ bas waaye na muy jéxal ni bala mo juk di jéxal mu yëkkati tankam sol dàllam waxuma yone de waaw sol dalam ndax fi lu lu fi ne dañ koy netal de mm-hmm. yaay dégg sol dalam ni may defal kilifa diine yépp mu defal ko Cheikh ibrahim su gamu serigne bass jotee su déssé ñaari fan warna mëna jog déplacer jóg ñew wo ñëw ak wa njaboot ko serigne bass alcorane dox ko le rek seen diggante ndax dañ ko séx té bo président amagul bu président amé la loolu war gëna gën a yomb bul bul ma ay protocole yoy dé gis nga ab tal ko xam tal bu ne tak na sa kanam ba fay xam tal waru la jaxal mm-hmm. ab tal bu lay ba fay. wa borom tal rek ma xam ba yaa ngi dégg kon nak def na def fi 200 bu juk ci nekku seigne bas ak wuuteem mu jogi fi non rek dem te ñëwul saafonte ak ñom da leena wara sax recevoir da waron ni seigne bass alquran sama sama wolere wa sama bàyyi parce que bayam la koo ko fi nekkal xam na ki ko fi nekkal xam na ka da ndox digënté ak mom mu mu ni wol ma len mu ñew recevoir len wax ak ñoom saafonte ak ñom parce que mom mi ngi tàggatoog ñëpp waaye ñooñu la war a gën a tàggatool parce que ñoom ñoo ko xamoon démb xam ko tey te duñ ko fàtte suba tamit te fii lu fi lu loo fi gis day jeex. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. sëñ Bass alxuraan amul ab dëkk boo xam ne dañ daa bëgg ab télé dem fa soo ko amee wax ko. amul foo xam ne nañ ko fi yóbbul courant. kër Cheikh Ibrahima Fall gi la am màggalam gi am. te li gën a xorom nag mooy ñàkk gi mu fi ñàkk ne ak njabootam ne fi te njaboot gi état bu ñu koy wax kilifa diini rek a tax. loolu moo xam président la moo xam ab directeur la moo xam ab maire la moo xam koo mën a doon jàppal ni saa yu ñu la falee booy xool kilifa diini yi ñoo ci ëpp part de responsabilité xam nga lu tax. ñu bari bu xew jotee màggal wala lu mën a jot tabaski wala lu man a jot xew-xewi diini yi. ñëpp dañu daw wut si la te ñun ba ñu nekk si ñu sooy bu ñu ngi koy fàttaliku am na ay ay saaru meew ay corne boofu ay nangam nangam dañ fa daa ñëw foofu ay pot sardine dañ daa ñëw foofu ngir donga yi yu bare bare bare chaque weer mm-hmm. yooyu yëpp fi ne ni amatul ci jamono ji léegi waaye léegi da xool ni bu dee bu dee ab maire la wala bu dee ab directeur la wala bu dee ab président wala lu ma doon den mel yow li nga doon sax nit ñi jaarul ci nit ñi pour nga pour mu am pourtant ci nit ñi la jaar. li naan waaw waaw te li ma gën a jaaxal mooy hey ñun ñu war a seet seen bopp. ah yow koo xam koo xam ne sëñ bi avant ngay falo doon na lim doon hmm. bi nga faloo mu doon lim doon hmm. boo folle ko day doon li nga day doon lim doon yow kay mooy loo xam ni soo ci jàppee mu dem. boo jàppul mu dem waaw jàpp ci nga dese sag bi rek. waaye boo faloo li nga njëkk def mooy sensé numéro ku la woo fi xam ne nii man am na maire boo xam ne fii ah fi ne sama téléphone numéro am néewtu ci te bari naa ci ay morom ñoo xam ne soo leen woo téléphone duñ la faale sax te doo leen woo da leen da woo ngir ngir li war sa diggante ak ak ak askan wi. Mhm. waaye sax duñ ko def. Mhm. te bu heure bi jotee nag mel ne ay njëriñ. mooy beew mu nga kiimaal moo tax kilifa diine yi ku ci ne na yor sa discours bu saf sàpp wax wax wax bi mooy dëgg sëñ bi. yaa ngi dégg ku dikk di la bëgg a sonal la ka fen ka nangam nangam xamal ko carrément la xew bu ñu fonto waay. wax waaye nit gëj a gis nit ay ati at mu ñëw di sàkku ak pal ñëw ci yow sukk fi suuf tàll ay loo xam na ñaanal ma nga jël seen ndénkaan jox ko mu dem am lu muy am dem fuuyu dem ba ëllëg bu soxlaat ko mu ñëwaat yàgg bu ñëwee na wax ko dëgg sëñ bi. Mm-hmm. kooku bu ñëwee ba ko kii wax ko dëgg. ma loolu nag mënu su ko woon a ñàkk a wax kon lii message la boo xam si ni dama koy wax képp ku ko mën a ndax li ma waxoon rek ci tali bii nga xam ni moom la président defoon fii ci kër Baye Fall yi loolu sant nañ ko ci ndax biñ ndog yi commencé ci at mooma fii laa toog wax ne laay si mel ne ko bàyyi ndax ndog yu Cheikh Rafal yi mu wërta poussière yi jëm ko Serigne Touba mu ne wërta poussière loolu jamono weesu na ko ab rang laa fa newoon. dañoo defee ñaari yoon ñaari émission xaw ma jot nañ ko xaw ma jot waaye lu mën a xew rek mooy télé bi commencé nañ ko ba defar ko ba mu àgg waaw kon yooyu yëpp xam na ko te foofa xam na wax fàttalewoon nañ ko la fa xewoon mm. kon képp ku mën a dégg li tamit na ne lii war na ko jot mm. waaye digganteem ak njabootu Cheikh Fall gi digganteem waa kër Sëriñ Bass Alxuraan lu mu war a defar la waaw waaw te te te ñim fi siqal kóllëre dafa bari mm. ñun ñi ñun ñi rek ñun ñi di waa kër Sëriñ Modou Binta gis naa kilifa yi sàkku sàkku nañu alliance ba seen diggante ñoom musu mais musu ko def mais nag ñun mais sax yàlla xam na ne wuñ ko instant bi soxlaatuñ ko gis nga loo loo muñ fukki lu war a lu diir fukki at ak ñaar fukki at ak yi ak i weer dem kooku saway waay euh, waaw waaw waaw waaye nag du tee ngay wax dëgg rek ah. nga xam li fi lii lu fi am la hmm. amoon fi amatu fi ñu koy nettali te ëllëg dañu duñ dañ mukk histoire bind ko pare waaye adu rek bu dajeeg sëñ ba na dem rek ba xam bu dajeeg sëñ lu muy wax ak moom mi ngoo ko jërëjëf bu ko na dem bu dajeeg Bass lan lay wax ak moom di kaddu si Moustapha Fall Fatick ne émission bi pa nga ñam jërë ngeen jëf ci teewlu bi illallah la ilaha illallah abonné leen ci seen seen YouTube Darou TV abonné leen ci seen seen YouTube Darou Fall Easy.